ceerno mu lemi ba muy door noon yaa ngi naan du tëre mu lemi ba muy door noon yaa ngi naan du tëre mu lemi ba muy door noon yaa ngi naan du اللهم صل على سيدنا محمد ولا آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ولا آل سيدنا محمد وسلم يا رب العالمين ba muy door noon yaa ngi naan du sore Ceerno Mulemi ba muy door noon yaa ngi naan du sore Ceerno Mulemi ba muy door noon yaa ngi naan du sore Ceerno Mulemi ba muy door noon yaa ngi naan du sore Ceerno Kunta mi ba muy door noon yaa ngi naan du sore Ceerno Kunta mi ba muy door noon yaa ngi naan du sore Ceerno Kunta mi ba muy door ngi naan mi ba muy door noon yaa ngi naan du sore اللهم صل على سيدنا محمد ولا آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ولا آل سيدنا محمد وسلم كان بلني بمجدار نون يا ànd doore Ceerno mu lemi ba muy door noon du sore Ceerno mu lemi ba muy door noon yaa naan du sore Ceerno mu lemi ba muy door noon yaa naan muy na Ceerno bu ba muy door noon yaa ngi naan du doore Ceerno bu lemi ba muy door noon yaa naan du doore Ceerno bu lemi ba muy door noon yaa naan du doore allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim jërëjëfa ceenn mu li sow borom faajulu naajulu ajjuma bente ne binti yàlla ne ko li caamane ko li dama kaa borom sant sama ruusi bismillah ma dugg ah tonton saw feelu la laa ilaha illallah muhammadu ya rasulallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah muhammadu ya محمد يا رسول الله لا إله إلا الله كيرنو مولاي ساو سوبي نبي كيرنو مولاي ساو سوبي مصطفى لا إله إلا الله لا إله إلا الله كيرنو مولاي ساو سوبي مصطفى Ceerno Moulay Sow soppe yonen bi laa laa ilaaha laa ilaaha laa ilaaha illallah allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad